suñ ci loolu dañuy ñëw ci sa combat bi nga xamante ne amoon na Gambie dama koy dagg doo ko dagg comme way way bu bees boo fi amoon dama koy dagg doo ko dagg damay dagg bi baa ma joon ko dagg combat bi yàqu ci yenn détails yooyu noonu lan moo taxoon nga bañoon dagg wee parce que gis nañ bi nga demee niñ la dalalee am na ay coow yu jota jot am am na ay détails yoo xam te jot nga ko cee dund bi Gambie est ce que loolu moo gën a tax nanguloo yeef yenn sacrifice yi keroog bi ne la da ngay dagg sa wee bi non man dama ne lu ma wax ci combat boobu quoi parce que passé na hmm. mais booy dagg da ngay dagg loo am man xool nan ma aw ma ay wee aw dara làmb ji leen bëggoon a yàq la colomotif ci affaire yi wee rek mais man dama lu weer waxee yow nii ngi man du ma weer wee sax ni may waxee yow nii maa ngi kurus moo tax fu ma toll fu ma toll maa ngi jàpp damay téye kurus te boo yer say wee yenn saa yi so soobee mën ci dugg ci xam dara te ñun xeeru seenaa moo xam ne ay juril lan fu mu toll noo war a sell xam nga même dara man maa dul weer katab wee sax xam nga làmb ji daal noonu la fa demoon préparé nan ci xaalis bari nag bu bëree bëree bëree bëri parce que jàppale bu dëgër laa ci amoon billaahi nga xool bii su ma yóbbu trois cent cinquante mille laa ko fay bi bii bi xoolal loolu bu demee dépassé lépp da nga jàpp ne ñan ñoo lépp tout ñan ñoo bëggoon yàq làmb ji yaa ngi dégg non waaye waaye moo bëree xam nga ne jekkuloon kooku même bu jekkoon sax mënu maa daan mënta ne da ko ma daan mënu laa daan man fi la jaar man man pré préparé naa préparation boo xamante ni korog billaahi gëm naa ni kii arbitre fi bàyyi ndax man nit ku nekk da ngay gëm li ngay liggéey gëm sa bopp loolu loolu bay bëgg a dee te waa ji bi mu mënee xool ma Gambie bi nga bi nekk si biir géew bi maag waa ji bi nekk si bi mhm. ma su doxee jaar fee ma woo ko naka sawaay ñëwal au orbi naka siflel combat muy guddi ñoom ñu commencé jaxasoo nag commencé jaaxle ndax mom mooy seen roi des arènes te ñoo bëggul ba ma yoon daan ko mu jël seen drapeau drapeau euh, Adama Barrow ak Macky Sall président Macky Sall ma jël drapeau bi boole seen wàllu daan jël indi Sénégal loolu neex su ñoom kon nag làmba ji yàqu sax moom moo gën su ñoom moo tax ñu yàq làmba ji noonu la rek mais Gambie ak Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xoyantaan ak bàyyi ma joon duñ ci dara duñ ci tus ngi mel ni nga fekk géej rek géej jël jël benn kaas otaay def ko ci noonu la mel maa xoyantaan duñ dara ci diggante Gambie Sénégal ba nu yàlla boole ñu nag waa Gambie ñu nekk benn boobu bàyyi ma joon juddul xoyantaan judduwul xam la kon nag espoir yàqu suma digganteeg moom dara yaa ngi dégg yàlla yàlla baax na promoteur bi waxtaan ma waxtaan bu jubóo ma ak moom waxtaan naa xoyantaan pour ñu jël combat bi indi ko Sénégal xoyantaan dafa am combat di bëri foofu bu soobee yàlla bëree gam ba pare promoteur na taxaw sama combat ak moom ñëw Sénégal fii bëri incha allah rabbi ndax man instant bi fa nga ko combat am na ñu ma koy proposé. dégg fa nga ko lan lan moo tax. maa bëgg combat boobu pour ñu leeral mbir mi ndax la mu yàqoo daf maa métti.